Dakar ku ma dugal ci ligne bi moom itam mu participer ci émission bi ah ñu bari dañ koy laaj naan ko foo nekk ak foo dugg elle est donc euh, mu ngi noonu ala kii ajaratu Ndeye Gueye. waaw borom Ndeye création. maa ngi nii toog de dañ laa jox ay chèques yu baree bari moo tax nga dem làqutu ci sa biir hôtel di di ko lekk dañ ma. jox ay chèques yu bare bare bare nga retiré ko dugg ci benn hôtel dégg naa di ko lekk ndànk par ndànk. ay chèques yu bare bare bare. ah dama ko for rek. Ah, ma joxee buñ ma joxee chèques yu bare bare man du lekk bàyyi bàyyi jaamu yàlla. ah d' accord d' accord d' accord. Ah, nga xam nga xam man moom. waaw yaay Salla taalibi Serigne Touba la. gars yi da ngi laaj ana Ndeye Gueye mu ngi noonu de Ndeye noonu. waaw waaw waaw leen fan yii damaa xawoon jagad rek damaa xawoon jagad rek. mais incha allah bu ma yàlla mayee feex lundi dinaa liggéey si bu soobee yàlla. parce que maa ngi gis ñoom ñëpp ñuy ñuy ñuy ñuy ñu may demandé. Hmm. nañ ñaan yàlla yàlla may ma taw feex rek ak rek loo nuyu jumboori moom sama xarit boobu sama doomu ndey hmm. nga xamante ni fan yëpp toogul lu xëy journée te woowu ma ñetti yoon wala ñeenti yoon hmm. maa ngi koy bàyyee yàlla ak Serigne Touba ak bàyyi ñu suñu yaakaar mi am fay yàlla na ko yàlla fay ndax jumboori nit ku baax la du dëgg may nuyu belle-mère moom moi ah, di ko wax euh, bonne hmm. maa ngi seetaan naa ngi sa trop maa ngi ni toog sama place di seetaan gis nga waaw xam nga comme damaa xaw yàlla yàlla fëgg bopp ñaanal leen ma rek ma am wér ma kanee bu baax a baax a baax inshallah naa sax damay kii nii rek dafa am yu may yu may maintien nii rek <laughs> comprendre nga. nee naa suuf naan la suuf. mais damay dem Villa Cristal. ma naan suufu Yacine Diop. <laughs> waaw. débat yi ngeen fi wax yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp benn rek laa àndul ak Jimbori moom dafa yabaate. man nga xamul nan di nga ko yabaate. day feebar sax di la compte dafa yabaate amul respect parce que moom lu ñu wax mu xëpp ko Macky Sall. moom lu ñu wax mu xëpp ko Macky Sall. may ma sama jàmm lu ñu wax nga xëpp ko Macky Sall. man da fan laa ko ko xëppee. léegi li ma gën a metti mooy. affaire Pawlish ak Mbaye nga ne nga ne anim nga ne ñu leen di la mais mbay moo tooñ te man keroog ci plateau bi nee naa ko Mbaye yaa tooñ parce que li nga def tegu ko fenn yow daloo ci kaw Mbaye ngay dal ci kaw animateur mais est-ce que Pawlish doori tamit doori est-ce que yoon boo defaloon boo defaloon Pawlish Pawlish du ko xam naa bu baax. man maa dëggal Pawlish Pawlish duma ko parce que moo ko tooñ. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ma ne Pawlish da koo mooy moo tooñ parce am na li belle-mère wax rek laay wax am na yoo xamante ne kenn du ko wax doomu aadama am na yenn cër yoo xamante ne kenn am na yenn kàddu yoo xam ne kenn du ko wax nit. waaw loolu de du yoon ak publiquement waaw xam nga directement àdduna bépp di seetaan nga wax ko loolu nañ waxante dëgg neexu ci xol tamit aussi mm. xam nga neexu ci xol neexu ci xol maa ngi leen di gërëm di leen ziar di leen ñaanal yéen ñëpp jàmma ah, di wax e bonne continuation jaajëf Feeling Dakar ca kaw ca kanama ah, di nuyu Bamba bu baax a baax a baax jaa ngi jaajëf Ndeye borom guddi gi talaata ndeysaan day géey pourtant gis nga dégg wax na ko police de wax na ko kii de. mbay mbay ku caa de. non mbay moo nee na ko billaahi soo moytu Pawlish bu dee mi ngi seetaan émission bi dina fi débarqué waaw déglu eh, bu bu mbay tolloon ni Pawlish. mbay moo toll waa xaara xaara bu tolloon ni Pawlish. Pawlish du ñëwee noonu rek pour. dal kawam waaw wax ni non xe xam nga Pawlish man paraluma mbay. yow da nga yaakaar ne kon Pawlish kon mbay ku caa dafa tuuti moo tax mu dal ci kawam. waaw lim ko wax moo ma wala rek. Ah. fa ñu xeexee laa wax man Aliou. fa ñu xeexee moo jaadu waxa rek fa ñu xeexee moom baaxul mais mbay moom kantaay ko may mbay tam fa mu toll wala bi mu nee diw rus naa la rus naa la man boo boo duggoon fii léegi jotee ak Aliou rek ne ma rus naa la rus bi nga ma rus laay utiliser pour wàcce la nga defal la waaye fa mu tooñee itam jaaduwul fa mu tooñee itam jaaduwul dañuy waaye Sénégal xamuñu eh, ku doo eh, eh, dëkk bu leen neexoon ñoom mbay du ko fa waxee dañuy annoncé benn eh bu ñuy bu ñuy def émission léeg-léeg ñu toog ni lii la ñuy wax ak lii la ñuy wax kee moo ko woo mu ne ko mbay nee na nangam. waaw bu leen neexoon dañ naan mbay loolu bu ko fi wax. waaw il moo ko wax. jërëjëf ci mbóori donc Waly Ballago Seck la ñuy ñëw ci ay mbiram tuuti. Hmm, muy benn concert boo xam ne moom la Waly war a amalaat. Mhm. ginnaaw Italie mu nga jëm Espagne. Mhm. Espagne Waly mu ngi fa war a jëm le 27 mai gii ñu dëgmal. Mhm. Hmm, benn waaye ju ñu naan As Mbay Asmbaye moo ko war a yóbbu Espagne le 27 mai. Mhm. donc duñ def lu dul. ay ay ca leen ñu dem Espagne ku dem Espagne ma dem ku demul ma dem. hey hola hola festival Sainte Africa le vendredi 27 mai ca Valencia ca Espagne ku koy tëgg ñu ne Wally Balago Seck et le Ramdan ca salle auditorio Burjasot de 20 heures à 23 waaye na tubaab bu la ne soirée bi 20 heures la 23 heures lay jeex 22 heures 30 boo ñëwee 30 moo lay dese kon na ngeen teel a ñëw ku entrée ba. cinquante cinq euros la VIP cent euros ñu ci woo waa Espagne yëpp bàyyiwuñu kenn ñi jóge Allemagne ñi jóge France ñi jóge ci yeneen dëkk yi ñu daal di ñëw Espagne nag ci soirée bu rëy boobu ticket yi ña ngi koy jaayee restaurant Le Ndiambour ca Madrid chez Astou ca Barcelone 0034 69 85 10 327 wala chez As Mbaye ca Valencia 0034 63 26 05 987 kon nag ñoo ko déggandoo Wally Balago Seck El Ramdan kuñ ko parrainé monsieur Cheikh Ahmed Tidiane. del déglu del xool Dakar site bi lay Dakar yaa ngi Feeling Dakar di Dakar yaa Dakar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 Dakar, notre plateforme d'information.